bi baa ngi laaj ay juge combat bi dox ci digga Thiatou Pouyeul ak Gouye Gui 2 arbitre ba sifflé na Gouye Gui 2 moo ñu wan ginnaaw Thiatou bi moom la ñu jaakaar lool Thiatou Pouyeul guy Gui 2 Gouye Gui 2 moo ngem boo ngembul weex li Thiatou Pouyeul bi moo ngem boo ngembul xonk li Thiatou Pouyeul lañ tànk dox jëm ci guy Gui 2 jàppante na ñuy loxo Gouye Gui 2 ko caatu poyol guy gi de caxabal na ko doxay daan vite fait bien fait vite caatu poyol bi daan na ko vite fait bien ko jom ak fayda di ko xam ne doomu Grand la doomu Grand Médine warul ragal daal loolu ñu gis gis mu ñëw xale yëpp topp ci ginnaawam waaw laa ni mel Grand Médine bopp la kenn mu ko ñaar bu ñëpp bu kenn jugee ñëppay jug loolu jugee Grand Médine la waaye ñu ngi may di ma contacter dèjà tool yi bari naa bu bëri ko maa jànk ko laa bëgg bu bëri ko. waaw lamb lamb mooy boole ku nekk xam am naa kilifa am naa ay manager Birame Ndiaye sa manager képp sox sama combat rek dama koy Birame Ndiaye incha